mi ak élection yoo xam ni ñu ngi koy waaj a ah, ñëpp ci xaw a tiit ndax ah, wax ji am ci diggante ñi nga xam ne ñoo ne ci nguur gi ak ñi nga xam ñoo ne ci ku jege te it taay li nga xam ne tamit moo tax eh, ñu gën a tiit ah dégg nañ kenn ci kilifa yi moom. pare na bàmmeelam ba pare Touba waaw nag loolu buñ ko déggee ne maa ngi ñëw dañ ci tiit loolu tax na ba e, depuis ci temps yi ñu ngi jóg di dox e, bërkaati démb dem nañ ba gis ki nga xam ne mooy président de la république ak premier ministre ak ñu toogal yëpp ñi leen yéen yéen a yor nguur gi lépp lu ngeen xam ne mën ngeen ko def te du yee fitna te it day tax ñun ñu dal def ñu ngeen def ko waaw président nañu moom mun nañu konte ci moom ba nga xam ne lépp lu yee na du ko def ñu ko doon rafet lu lool biñ fa jógee nag fii lañ jiblu si Touba waaw parce que am yaakaar lool am yaakaar ci kàddu gi am yaakaar ci ñaan yi moo taxoon ñu ñëw ba fi tey ah ñu ne day kàddu bu fekkee ne jóge na Touba jóge ci sëriñ Touba ci boppam yaakaar naa ne senegal yëpp muy kilifa yi muy taalibe yi ñëpp daañ ko dégg lolu mo le ñu ñew ak ba fi di ñaan Touba di la encore di la ce suñu coloré am lool euh, pour ce ñep dal waaw ñep dal di euh, dem ci ay élections yo xamné day nek ci jam euh ñu ci parce que lolu tamit mom mo Sénégal waaw jam rek parce que fi mu Euh, dëgg dëgg fitna xajul ci réew mi ak lañuy dégg pétrole yeeg ak euh, yeneen euh, yu ñuy dégg yu am ci yeneen réew yi fitna yi bañ mu agsi fii moo tax dëgg dëgg ñu am yaakaar bu rakaar lool waaw agsi waaw lépp itam jëm nag ci jàmm dégg na ni ko wax ni ko wax itam ginnaaw jaar ngeen ci président bi moom tontu leen loolu loolu xel mën na cee gën a daal waaye yéen li ngeen di dox day loo xam ne lu lu am solo la ndax yonent bi dafa xam ne defarug bokk mboolem li ñuy def ci lu dul farata mboolem xeeti naafi la ñuy def ak yu baax yi ñuy def defar bokk moo ci jitu defar bokk nag yaakaar naa defar bokki réew yaakaar naa moo ko gën yaatu te loolu loolu loolu loolu ci xew mboolem li ñuy def ci lu baax lépp tànk defar bokk waxuma la tànk defaru réew defaru réew bokki réew loolu moo jiitu moo jiitu ci lu baax li ñuy def lépp lu ci dul farata nga xam ne lañu suñu borom moo xam moo xam nam na ko tegee waaye da nga xam ne moom mi ngi nu ciy déglu mi nu ciy xool nu ci nu di ci jëfe suñu kem kattan ngir sàkkoo ko ngërëmam loolu defar defar defar bokk dara da ko ja jiituwut da ca dolli ko itam Sénégal moom eh, ci googu wàll am nañ ca bind boo xam ne du du faa du far mukk muy sëriñ bi ku ne xam ne Cheikh sëriñ bi sëriñ bi ku ne gis na ni nga xam ne ni mu ni mu ni mu ni mu demee ni mu jógee ba ni mu dellu see fii ku xam na ne lépp lépp lépp jàmm la boko neexoon muy ay wuri ay wu mas a am rek bu ko neexoon ay ay ay juddoo fi boo xam ne benn ay du ko mas a ëpp waaye bi mu jógee ba ni mu ñibbisee fii ci boroom rek la nekk mus koo boole jenn fitna lépp moo ko yoral boppam ci biir ak ci biti kooku doon exemple ci adduna bépp waxuma laa Sénégal Serigne bu fekkoonte ne xam yomb woon na noonu day jar ñu ñu bind ko bind bind bind bind bind bind bind ba xam Serigne Touba mooy day jar bind ko ba xam dundinam dund ko dundine mooy lan loolu bu fekkoonte ne euh, adduna bépp xamoon nañ ko jàmm am fépp loolu rek laa ci laa la ci tontu loolu daal mooy li ma ci xam bu wér boo xam ne xam-xamu yaqin la boo xam ne xam-xamu dëgg dëgg dëgg dëgg xam-xam loolu moo nekk kon réew mën mën naa jaaxle ba mu des senegal bi amee Sëriñ Tuubaa loolu mooy dëgg te lu ko gëstu gëstu gëstu dañ koy gën a gis mu gën a doon dëgg rek <laughs> noonu rek kon nag yéen nga xam ne kon yéen ñi ngeen di sant yéen ñi nga xam ne da ngeen jóg séddoo loolu def ko mu seenum liggéey yéen am ngeen dam am ngeen dam ba noppi waaye nag yàlla suñu borom mii dafa ko dindi ñoo ngi ñaan bu baax ñun ci barki Sëriñ Tuubaa yàlla sax def jàmm fii ci Sénégal saxal ko te def ko ci réew yëpp ndax ñëpp jàmm yàlla lañu rawatina lislaam loolu rek mooy suñu ñaan waaw te ci barkeb sëñ bi mi nga xam ne liggéey na ci jàmm liggéey boo xam ne kenn defu ko ci barkeb la ñuy ñaan waaw noonu daal rek gannaaw bi nga xamee ne sëñ bi wax na kàddoom yu matali yi wax yu jot sëkk yi te rafet ba noppi dara luñ ci dolli sax dañ ko cee wërta sañ daa fekk na ginnaaw ay bokki taalibe ñaan nañ bëggoon ñu xaw a gën a leeral rek wala bu ñu mën koo firi fi tuddee firi te lu tax ñu di ci ñemee dara sax xanaa mooy li tafsirul quran a wax li am tafsirul quran dafa am kon ginnaaw alquran lañ mën a firiwaat ndax gën a jege sil maanaa yi ba ñi ko ñu ci bari man caa dolli ko xam-xam bu ñu xoolee saraa bi ci lañ ñemee ak jéem a sara dara ak coon ci waxi sëriñ bi bu loolu loolu duñ ci ñemee ak dara waaye ginnaaw dañuy firi alxuraan loolu la ñuy tegtaloo sëñ bi bi nga xam ne bokk yi ñëw nañ léegi di ko wax te mooy société civile bi di wax ne dañuy dox tànk jàmm wax ne gis nañ jiitu réew mi wax na waxtaan nañu moom dénkaat sëriñ bi seeni kàddu ñaan ko sëñ bi la wax dafa doy sikk ndax sëriñ Touba rek ci la joxe misaal xam leen sëriñ Touba ba mu jógee ba ni mu ñibbisee Touba ci jàmm rek lay dox jàmm rek ku ko yitteel fa mas a jaarit jàmm la fa doxe te sëriñ bi leeral na ko bu fekkonte ne sëriñ Touba day fayantoo wala mu woote leneen nee na kon ba nëgë ni aw ay amoon na ca woo xam ne kenn du ko fàtte ba baat ñuy tukki mm-hmm. waaye Serigne Touba jàmm rek commencé yitteel jàmm la mas ci dox jàmm la mas ci ñaan loolu la Serigne Mountakha wax léegi loolu nag xanaa bu ñu ci amee lu ñuy gën a firi rek mooy fàttali ñëpp ne Serigne Mountakha gannaaw jàngal na Serigne Touba ñaan na ci barkeb Serigne Touba loolu de luy am ba noppi lay doon kenn ku ne nag na ci jéem a def wàllam jéem caa dox ay tànki jàmm jéem caa dox ay jéego yu jàmm te loolu mooy lan ginnaaw daa am lu ñuy bëgg xëccoo kenn ku ne bëgg caa jot damaa defe ne ginnaaw ñun ñëpp noo bokk réew mi kenn ku ne lay tax la ngay wut boo ko amoon it mën koo jariñoo ci jàmm mooy nga jiital ci jàmm te dox ci bëgg te bëgg ci jàmm te dox ci jàmm ñépp a ci yem nag réew mi moom démb rek wax naa ko fi leen juddoo fi leen dëkk fi leen fas yéene faatoo ku def sénégalais nag boo xam ne gëm nga sag sénégalais laa wax kon kooku ñun ñëpp Sénégal jag rek moo nu war bëgg fa jàmm rek moo nu kon ñi nga xam ne dañuy wut bu ci kenn jombale sa bopp dara waaye kuy wut itam na ngay rafetal amee itam nga gëm yàlla la jox ba ñàkkee gëm ne yàlla la xañ ka ñi gëm yàlla ñëpp nangu ne kii yàlla jox na ñëpp bokk bëgg jàmm man de loolu jàpp naa ne loolu la sëñ bi bëgg loolu moo ko tax di wax bu kenn moomale nag ne di war a bëgg jàmm bàyyi keneen ñëpp war a bëgg jàmm ñëpp ko war a bëgg wut ñëpp ko war a bëgg di ko dox di ko wax di ko yéene di ko xalaat te boobaa jàmm ji day gën a yokk rek day gën a yomb ndax Serigne Touba sàgg fàggu na lépp Serigne Abdoulaye waxoon na ko fii ne réew mi moom jàmm rek fi am ku fi indi asaw ayit sa sa bopp lay këpp waaye nag. wala fi dañuy wax ñax ñax goo dana lakk ku tooy te kab yi képp ci bopp mi kenn yéene wu ko kon nan yéene lu baax te yéeneente lu baax te bëgg ko rek te di ca dox di ca wax di ko def mu ko defee lu baax rek la di am te loolu Serigne Touba wax na ko ci njaareem gii mag ñu ko siyaare ji mu ne maa ngi leen di dénk dee leen yéene lu baax di ko wax di ko def loolu waxtu wu ne dañ ko war di gànnaayoo di ko jëfandikoo di ko bàyyi xel bu ca nekk ñëpp nekkee jàmm rek kay am te bu jàmm amee ñëpp a koy jariñoo kon na bàyyi loolu la sëñ bi bëgg a wax kon nan bàyyi xel ci loolu nag ñëpp te doxee ko noonu bu kenn jàpp ne nag yaa ne ci yoon sa moroom a nekkul ci yoon donc ñëpp na kenn ko ne jéem a ne ci yoon rek te yéeneente ko te bokk te bokk ci xalaat bokk di ko def boobaa itam su borom di mu leen ci barke sëriñ bi noo am jàmm te mun Muntaxa ñaan na ko te sëriñ Tuubaa ñaanoon na ko kon ku ci góor góorgóorlu jàmm ji fekk la fa nga nekk ku xalaat leen yéene leen nag sa wàll laa fekk si biirum néeg nga wéetewoo nga wéete ko te boobaa dana metti ci yow kon nan bokk xalaat bokk bëgg lu baax ndax rek lañ ci amaloon